alors Thiat tey ñu ñëw seet si la ah, bëgg xool yan ngay defar xeetu baax baax yi ngay defar ak yooyu mm-hmm. ah, ak tey lan nga ñu nar a proposé am nga tey maa ngi noonu di préparer commande client mm-hmm. yi. nga xam ne comme tey la weekend la samedi la ñëppay soxla yenn affaires yu baax yi mm-hmm. diini yi ndaw yi ko préparer nag léegi comme nag ma bett tuuti rek mu génnee commande client yi parce que nag client yi xam nga rek nu mu demee ah, ñoom ñoo ñoo fi ne léegi nak buma ma paree ñooñu ma dafa leen ñu ba sour su ko ñooñu yéggal nak ma dafa leen ay jambonnette de poulet yu bax ah. yo xamné ne macha allah waaw tey de poulet la leen bëgg proposer li nga xam ni peut-être sénégalais yu bari xamuñu ko pour ñu jëm ko xam ndax ñu mën di ko commandé incha allah. non lii da ci ba parce que après sama caméra woman bi xam nga dañ ko tak bes wa ndax ko fi bayil réception bi ma kay def. nga jangal ko ma kay defal lepp jangal ko ay togg yo xamné ne allah. su ah. démé bu waji bu toggé waji signé. Ah. du am ñaaral mukk. <laughs> jéena <laughs> léegi léegi kon lay doon ñu ndekki ba suur ah ànd ak caat léegi buñ ci jugee nag daal di mu proposé ñu plat bi nga xamante ne ah mooy jambonnette de poulet jambonnette de poulet way alors ñu ànd ci ak moom wan ñu nan lañ koy toggee sama genre nga xam ne xamuñu sax lu bëri ñu jàngale ci lu ah, noonu loolu la jéena jàngal sama xarit jéena léegi léegi lay doon ci biir caat chers internautes mu ngi noonu euh, ñëw nañ seet chat Thiat décoré ah Thiat toggal ñu suñu plat boobu nga xamante Thiat mu tudd sax. jambonnette de poulet. voilà jambonnette de poulet mom lañu mom lañu togal gis ngeen préparation bi alors Thiat décoré nga mën nga expliquer un tout petit peu li nga décoré ni. ok dama leen defaral jambonnette de poulet defal len accompagnement bi moy sama manière bi nga xam dama ko tak ak jambon ak euh, haricot vert bi defal len encore sauce main comme ni ngay ñew main ma créé len benn sauce bo xamé sauce main la et puis voilà mu ngi nii plat baa ngi ñu def ko décorer ko ba mu nice. ma gis euh, à la fois ci plat bi euh, ci plat bi gis na fi ay haricots verts bu ko defee ci aspect diététique bi dafa baax ci si si wér gu yaram. ci wér gu yaram surtout légumes peut-être euh, nit ñu bari xamuñu ko. ma genre du lek lekk légumes. xam ne dafa baax nak surtout haricot vert bi.

Je man dama def formation hôtellerie en gastronomie euh, def jaar ci ça ma formé après def un stage def seen hôtel yi mag yi après dans le Maroc ne kenn entreprise la main d'or traiteur. d'accord pourquoi as la main d'or. pourquoi la main d'or traiteur moi la question fu je suis am à Gaï, je liggéeyee su may liggéey ak gâteau comme man pâtissier cuisinier en même temps polyvalent la lu ma la mën a defaree plat chaud bi la mën a defaree dessert boo ne koy ma gâteau ba pare wala ma benn affaire gars nañ ma main d'or me d'or léegi nag moo ma jox idée que ni man sama la main d'or et puis ma

man nga gis bop si sa plat bi proposé len plat bi mu nek plat bi nga ne ma et puis vraiment yaakaar de dina len neex yéen tamit alors yow ku bëgg ñëw ci yow nan fa la lay ku bëgg ñëw si man mën nga ñëw jëppal ñu ngi nekk euh wetu kër moy sa sëriñ bi sama sëriñ euh, ci bi ci traité dañ la ko mën nga ñu jot ci numéro téléphone yi 738 77 738 36 46 738 36 46 wala nga woote ci 33 824 20 86 dama fi ñew fekk fi équipe bu xarañ. équipe bu technique xalé yi di daw de gauche à droite. mu gis leen vraiment ñoo ñu xarañ lool. hein équipe bi nga andal mu jeune ba dé dynamique lan nga mëna wax ci ñom wa lu kontaan ci ñom mhm. ndaxte avant tout parce que ñom la. Mhm. ñun ak ñoom ñooy liggéey comme man mi ko moom man ma gëna nek jeune que ñom mhm. ñun ñëpp ay xalé lañ ñu fi nek dajaloo di liggéey puis di ñaan yalla yalla dafa ñu jamm dafa leen koy ñep vraiment di content ci ñom parce que timit euh, suma nekké fi ñu nekk fee buñu ñu desee day gën neex tu as vu tey ñu mu démé malgré amna yeen affaire yu ñu am ñu doon dóor mais ñep dañ ci japp ñi dóor fi ñi dóor fi affaire yi nice et puis lépp nice quoi et puis amna na équipe yi nga xamné ne ñu ngi sur le terrain en même temps sànq dama la dégg nga wax lu am solo nga nekk euh, ab assiette ni nga dressé ni nga ne assiette du dañ koy dañ koy surcharger non ndax ndaxte li tax ñu def li assiette

bokk na ci plat bi ñu war ko bañ ko sizaare ba mu xam ne ba mu dama mu fees am fooy teg loolu tamit dañ koy sóoraale. man sama mbokk séeréer yi waaw dañuy bëgg mu fees. <laughs> ak sama mbokk man xam naa ne kii lu boo ko tegaloon ku gën bëgg lekk. dadi gis nga dadi. ah waaw dadi bu feesul bëggul. dadi moom waaw dadi moom bu fees ah loolu moom xam naa ne dama koy bàyyi après ngeen xool quoi loolu moom dina doy waar xam naa daal li ma la ñuy wax mooy que ni euh, li ma koy dénk sama mbokk yi di ko dénk cuisinier yi di ko dénk ñëpp ñi bëgg war wërgu yaram il faut ñu xool lekk yi di xool nu ñuy lekkee ak yan plat lañu war a lekk parce que tamit feebar yi bëri na. dosage aussi da si am solo. ndax nit ñi ñu ngi feebar feebar yi gaaw yi dee dee gaaw yi li ko waral mooy lekk bu bon. def yenn bouillon yi nga xam ne dafa ëpp. nañ ko wàññi mënuma wax ñëpp ñu bàyyi ko ndax kenn ko ne sa affaire la mais ñu koy def tamit nañ ko wàññi ba nga xam ne nit ñi dañ ci mën a am wérgu yaram. parce que tamit nit ñi tamit jàngiyaat togg xam ne ni togg métier bu noble la métier bu nice la vraiment Sénégal yi commencé nañ ko bëgg. waaye macha allah. alors euh, Thiat dañu lay remercier kontaan nañ sa mot de la fin. Abibatou je vous remercie, vraiment di remercier sa Sakharit, xarit Seri Dadi vraiment di ko di gis naa ne moom tamit yéen ñëpp macha allah depuis suba ba léegi yéen a ngi taxaw nekk ci affaire yi xam nga nu mu gën a naaj si ngeen koy def di di gërëm ñëpp. di gërëm encore sama équipe di gërëm sama famille di gërëm sama sama soxna et tout vraiment di gërëm ñëpp quoi di contane bu baax plat bi nak sama yaay la kay may. comme moom sama xarit la te man dama ko bëgg euh, mooy sama aaw aawo madame doora ñëw nekk ñaareel kon plat bi mère bi laa ko may uh-huh. di ko wax ne lépp yaay borom te li fi toog suba ba ngoon jee yow laa ko may